asalaamaaleykum rawatina yéen ñi saxoo di seetaan Médina TV saa su ne ci seen émission doomu Médina tey nag damaa ñëw seet si koo xamante ne ku tudd Médina war koo mën a tudd mu am jaar-jaar am fu mu jaar ak waa Médina lii ngeen def toog di ma xaar saa su ne bu ngeen ko defee léegi ci ay seconde di ngeen gis sama invité ba tax na duma def lu dalal ko ci suñu plateau Boubacar asalaamaaleykum. maaleykum salaam Sofia. Bakar tey waa MTV dañoo ñëwoon sees la muy Medina TV HD ñu lay dalal ci suñu plateau ci suñu émission bu ñuy wax doomu Medina. maa ngi ciy kontaan di dal ci sama plateau bopp ci sama koñu bopp ci sama fa ma juddoo fa ma màggee fa xamee fa ma ràññee fa ma jàngee école fa fa ma xeexee fa ma troublé baale fa ma defee lépp Medina. mbokk yi bi ngeen ko déggee <laughs> wax na lépp li nga xamante ne def na ko biir Médina Boubacar ñii dañu naan Médina nga juddu ñi naan juddu fi daf fee jaar-jaar ñii naan liggéey moo moo ko fi indi liggéey moo ñu booleek moom ñi nga xamante ne dañoo mel ni man xamuñu kan mooy Boubacar bëggoon nañ la nga may ñu si tuuti pour ñu koy seetaan mën a xam. man maa ngi juddoo Médina dëkk rue 11 angle 4 sama maam mu ngi dëkk rue 11 angle 4 sama kër maam mi ngi ba tey rue 11 angle 4. suñu kër cosaan rue onze angle 4 lañ ma ngénte rue 11 angle 4 euh, fala fala sama maam nekk suñu këru cosaan euh, sama papa di fonctionnaire après tamit am rue am kër rue 17 angle 6 du 17 angle 6 entre 6 et 8 donc euh, ma doon jànge école Soumbédioune di jóge rue 17 di jànge école Soumbédioune donc man Médina moom falaa juddoo falaa màgge laa xàmmee ba sama papa comme enseignant amaat beneen kër géejawaay ñu dem dëkkiwaat géejawaay mais man Médina la la xàmmee lépp ci àdduna. d'accord Boubacar Médina nga yaroo ci gàttal donc lan nga am loo jàngatee biir Médina. waaw dañ fa jàng jàngatee ne nit dafay yaru nit dafay baax nit dafay topp ci ay magam parce que ñun ñëpp daawuñu ànd dafa amoon mag ñi am xale yi am ñeneen ñi am ñeneen ñi. dafa amoon ay échelon euh, yoo xam ni ñi tolloo maase ñooy ànd ci koñ bi ñëpp daaw ñu ànd euh, lu ñu mag ñi ne bàyyi leen ñu bàyyi ko euh, di dem foofu di fubbali koñ fubbalu koñ popo potu meew potu popo foofu la foofu la foofu la ñu tegee bal dënn foofu la ñu dugalee foofu la ñu gañee ay cinq pots cinq pots Euh, dem fa géej kusum dem fa euh, géeju Soumbédioune euh, dem fa xam nga loolu moo tax ma bëgg El Hadj Keita biin Fall ndax damay fàttali Soumbédioune ah dem fa jàngee fa jàkku laayen laay laay ja ko ah, laay ja foofu jàkku laayen d'accord xam nga foofu marché Tilène cinéma Roxy El Hadj cinéma El Hadj Euh, mais nit dina dëkk Medina ba màggee fa te fekk marinul xam nga marin xamoo marine mm-hmm. xamoo Gueule Tapée mm-hmm. euh, Gueule kondir bi ubbuwul woon léegi comme bi dafa ubbeeku woon pour jóge ci kondir jóge fii tëb fii mm-hmm. moom lañ doon wax marin jóge fii tëb fii léeg-léeg nga jóge fii war a tëb fii tëb bi baaxul nga dugg ci nga pëtax ci kondiir gi. ci biir kondiir bi. la <laughs> moo lay wan ni man euh, armeer ya sumbe jun dara umpuma fa. yaa ngi wax loo xamante nit nit dëkk maanaam nga ñëw luwee biir Medina te xamu ko. non ñëw sax juddu màgg fekk kondiir gi ñu tëj ko xamoo ni fii kondiir gi dafa ubbeeku woon ah, c'était à ciel ouvert <laughs> foofu macha allah ba Gibraltar nag ba Sanca ba. ba fépp fépp laa xam. fépp fépp fépp match nawetaan yëpp seetaan naa ko. Mm-hmm. équipe yëpp supporté naa leen. Mm-hmm. de Sandial a Xandaalu en passant par Kousum Damels. Déggoo non man Damels nag mooy sama équipe. Ah, parce que 17 laa dëkk. waaw foofu waa ah. Kousum la foofu sama kër ah, maam la. Uh-huh. mais man sama mag Modou Diallo Kousum la doon football. Mm. Damels sax lañ football cadet. Mm. jël coupe Damels. Mm-hmm. mais ñun Damels lañ dëkk. rue waa rue 17 Damels lañ bokk sama kër maam. ñoom ñooy waa kusum moo tax damet sa kusum waruñu di xeex parce que ñëpp ñoo bokk kusum ak sànjaal waruñu di xeex mhm. sànjaal ak xandaal waruñu di xeex ñun ñëpp ñoo bokk mhm. ñun ñëpp ñoo bokk ñun ñëpp ñoo bokk noonu la ko Boubacar Diallo waxee Boubacar li li ma fi wax lépp yow xam gis nga um, dund nga duq Medina dem nga fepp am nga si jaar jaar te Medina wu tey lii nga wax nii rek boo rombatee sax doo gis xale yi di football ci medd mhm. boo rombatee summi ju doo gis xale yi nekk si géej bi xale yi talatuñ sax foo li li nga de li nga filim nii xale yi defuñu ko léegi yow loolu noo ko gisee ci Médina wu démb Médina wu tey. waaw ah, wu tey nag dañoo silice bu mu <laughs> ëpp dañoo silice léegi àdduna day dox dañoo silice euh, civilisation bi dafa évoluer ba pare nit yi àdduna wóoratul nit yi dañu téye seen doom seen biir kër dañ seen doom seen biir kër te loolu nag moo gën a wóor mais Médina bu njëkk ba ñun dañu doon bàyyi ci mbedd mi yàllaa ñu doon yar de. <laughs> dañu bàyyi ci mbedd mi ñu til til rek. nekk ca carrément mais euh, tu vois wu démb ak bu tey tey nag dafa civilisé parce que xam nga amoon na ay ay ay moomaan xam nga moomaan waaw ah, mooy ñi doon quinze <laughs> ngay ñëw di dem dafa amoon ay moomaan ci buntu buntu cinéma yi am tafu ci buntu cinéma yi hmm. am joué joué xaalis ci buntu hmm. cinéma yi tu vois mais Médina léegi dafa civilisé euh, am léegi c'est la classe dafa civilisé ah. te ñun temps yooyu Médina bi noonu ngay gis xam nga Blaise Diagne. benn tali la woon. Blaise Diagne noonu léegi amul woon léegi la am deux voies. mais benn voie la woon am kondir am kondir tamit kondir bi dafa tëju foofu forox caay lañ fa daan jaay da daan jóge koñ koñ dem jëndi forox caay en face Roxy cinéma Roxy centre commercial. moo nekk léegi centre daan ñëw indi sa mbatt jë waaw dangay ñëw ñu jox la mbàttu nga jël ñeex naan nga indi juróomi dërëm ñu dagal la yàpp defal la ko ci kayit nga jël ñeex naan naar bi dagal la yàpp ba pare kii la nga lekk biir Medina jaayum ndox Medina la ma fekk ndoo xam nga ndoo mais tey tey la service duus duus mbedd la amoon <laughs> danga daan yore sa satala rang dem duus di hmm. daan yore sa satala rang dem duus léegi maintenant dafa civilisé carrément. donc yow Boubacar bu mën a déggee yow am nga loo mën a wax ci Médina wu tey dans soit ñu fi nekk ñu ngi gérer Médina di indi avancement di créer. bi ma gisee ñu koy pavé la xam ne avancement ñëw na. Uh-huh. ñuy pavé Médina la xam ne avancement ñëw na avancement vraiment ñëw na dëkk bi avancé na de. kon ci gàttal macha allah Médina ngi jëm ci kanam loolu moom man maa la ko mën a seddeel. waaw mm. ah, man ndax dama ko fekkee. waa li euh, nga seeta rafet na Boubacar mais xam nga xale yi ndeysaan dañoo xaw a dëgër bopp ñu baal ma ci terme ndax soo xoolee ci bi Covid 19 bi liñ ci tudd Medina dafa bari xam naa war na laa nag. Euh, waaw mais loolu xam nga yëfu xale la rek. wala bayre Medina waaw moo toll noonu et puis yëfu xale la. yëfu xale la parce que léeg-léeg ñu ne ñun dañu daan wax dañu daan dem ba ci taxi bi ba ci rue bi. Mhm. arrêté taxi fekk soxla wuñu taxi. day romb ñu ne ko pss taxi bi taxaw ñu arrêté daw. <laughs> dañuy dem ba ci rue bi taxaw ne taxi bi taxaw mu mel ni dañu yónni fekk kenn yónni wuñ taxi bi taxaw ñu daal di arrière daw loolu jikkooy booy Medina la. kon euh, foo. non mais yooyu yooyu xam nga yooyu day am ci ci yëfu xale daal. yëfu xale léeg-léeg nga dem football ngeen dem football ba pare ñu gañe leen ngeen ñu sos xeex. Mhm. ñu gañe leen ngeen sos xeex xeex bu rëy. xeex ko ba pare ñibbisi. donc xam nga yooyu yëfeeru boy benn naa yooy yooyu mënta ñàkk daal. mënta ñàkk waaye li mënul ñàkk tamit bëgg naa la ko laaj Boubacar comme que yow euh, vous êtes un produit de la Médina ndax sa xel nekkul ci ngay créer entreprise ndax chômage bi dafa bëri Médina te macha allah yàlla bàyyiwu la macha allah ci xel xalaat bu màcc mi ngay am ndax am nga ay créa yoo xamante ne bëgg nga ko teg biir Médina. waaw mais yooyu ci kanam lay ñëw parce que xam nga ndànk-ndànk la def fi mu nekk nii dañoo créer. télévision ITV créer rajo i rajo créer site internet am nañu ay employés ñu ngi participer ci dëkk bi tu vois am nañu employés yu bëri mais am na yoo xam ne xalaat nañ ko biir Médina bëgg nañ fa ay yenn affaires yu bëri ñu fa def mais mu ngi ñëw incha allah mu ngi si yoon bi mu ngi ñëw te incha allah xëy na balaa at bee jeex am na lu ñu fa namm bu soobee yàlla incha allah. mbokk yi ba tey yéen a ci seen émission doomu Médina ñoo ko gisandoo ñoo ko jéegandoo naka daal Boubacar Diallo c'est un produit puis produit de la Médina Boubacar léegi yow ban appel euh, ngay lancé jeune Médina yi balaa may tàggatoo ak yow. Euh, yiw gi ñu xamee Médina baax gi ñu xamee Médina yaru gi ñu leen xamee nañu ko yokk. nañu ko yokk nañ ci continuer nañu ko continuer mais maintenant moo bindoo noonu tëdd bi jee yeewu noonu maintenant moo bindoo noonu noonu la mel. parce que nit ñi dañuy dox ba fajar ñun bu ñu daan tiital sax dañuy wax daw leen tëddi gaaw balaa lëg daawur mbay ñëw ah du ngeen tëddi lëg daawur daf fi war a romb tey ñëpp daw tëddi parce que ñëpp ay dox ba fajar donc euh, c'est waa dafay loolu lu fa yàgg la quoi donc euh, gars yi nañu gën a lu gën a euh, relever l'image de la Médina comme nu waa New York gëmee seen New York comme nu waa Harlem gëmee seen Harlem ñun ñu gëmee ko suñu Médina comme ni Pape Birahim def ci way wi am from Medina and so proud to be from Medina yep <laughs> Boubacar euh, déglu nañ sa waxtaan bu baax mais xanaa lu tuuti tuuti na am loo xamante ne naqari na la biir Medina te xam nga wéy nga pour pour ne xaaral ma ñaxtu lii xale yi li ñuy def neexuma wala mag yi li ñuy def neexuma wala jigéen yi li ñuy def biir Medina neexuma lan moo la naqari Medina loo mën a wax te les nañ ko gën a setal nañu dind suuf si yëpp pavé gën ko setal nañu dindi suuf si yëpp pavé ko gën ko setal loolu loolu buñ ko defee sama xol dina gën a naat gis naa ne ñu ngi ci mais nañu dindi suuf si yëpp pavé ko gën ko setal et xam nga euh, kër yi mën nañ ko def aussi ay bloc ay bloc d'immeuble ay ay cinq ay cinquante étages mën nañ ko def ay mun na nekk New York melu woon ni mhm. Dubaï melu woon ni mhm. mën nañ jël ay bloc mhm. def ko ay cinquante étage mu jóg mu nekk ay tour mën na nekk c'est possible pourquoi ñee mën ko ñeneen mën ko ñun mënuñu ko ah mën na nekk buñ ko defee ay tour ñi am ci suuf ñi nga xam ne ñoo dëkk ci ci ci suuf si ah ñu jox leen ci trois appartements quatre appartements cinq appartements mais dinaa fooy toll di ko seen def ci ay lépp def ci ay hôtel ak yëpp mën na ne de day baax mbokk yi ñoo ko gisandoo ñoo ko seetaanandoo tey dañoo ñëw a seet si Boubacar Diallo dégg ngeen li mu wax ak ñun Boubacar li nga tey de MTV la la chaîne médinoise te ay jeunes Médina ñoo ko créé nan nga ko gisee ak lan nga am loo ñu yokku. danañ leen jàppale xam nga nag ma woon ne ma Médina rek man leen ñëw leen. effectivement d' accord Médina rek man leen ñëw leen parce que ci laa bokk te lii ku nekk daf si war a dugal loxoom. d'accord muy relayer l'actualité de la Médina muy relayer tout ce qui se passe à la Médina tout ce qui se fait à la Médina et tout ce qui se prévoit à la Médina mu nekk un rendez-vous pour képp ku koo xam ne soxal nga Médina ngay ñëw di xool fii affaire yi di. di bañ a def comme yow ñu di bañ xaar ku la woo wala nit wala ñu lay woo tamit xam nga muy yéex. ñëpp ci lañu na ci ñëpp def seen loxo na ci def seen loxo ñu ngi am contentement ah suñu invité gis ngeen ko tarkaala macha allah dafa neex invité ndax mi ngi nii la dama koo bàyyi rek mu ibbeeku wan wane boppam wan ni moom booy Médina la yëf yi dafa war a yomb ba tax na du ma def lu dul am contentement ci nii ngeen def di ma xaar saa su ne ci seen émission doomu Médina Boubacar mot de la fin merci Sophia merci la Médina so proud to be from Médina waaw ñoo ko dégg doo anglais bi mu làkk nag waroon naa koo mën a dégg nag ba mën koo. dama fier ci dëkk <laughs> ah mbokk yi ñoo ko gisandoo bu Boubacar Diallo ma ne ko sama invité tey may am contentement saa su ci yow mi nga xamante ne da ngay toog di ma xaar fii ci MTV la chaîne médinoise waaw saa su ne du ma juum du ma ko tëj te du ma ki nga xamante ne mooy jaar ci bopp bi Aminata Kane bi nga xamante ne mi ngi rue 15 angle 8 jaar ci kanam gi jaar ci fépp numéro téléphone am 77 757 31 46 ku ci bëgg rek demal mu make up la defaral sa bopp ba mu baax MTV.